tali bi nag dama leen expliqué liggéey bi techniquement nu mu demee loolu moo tax ma fiy jël euh, kàddu tali bi huit kilomètres deux cent la huit virgule deux kilomètres maanaam juróom-ñetti kilomètres yoo xam ne teg na tuuti mooy guddaayu tali bi mu ngi commencé ci corniche ba foofu la ñuy wax PK0 mooy corniche yi ci marché Mbaria jaar euh, ci marché bi jaar ci ñetti saam yi ngeen fi tudd léegi mooy Sam Diakhaté saam bu sëriñ Abdou Latif am saam bu sëriñ Baara Khourédia dem ba porte yu xonq ya boobu tronçon de deux virgule soixante-six kilomètres la waaye am na yeneen bretelle maanaam yeneen tali yoo xam ne aussi dañ koy galan mooy bi nga xam ne day dog tali bi jaar ci jumaa ji nga xam ne moom la ñuy wax mosquée des immigrés d' Afrique du Sud maanaam immigré nekk ci Afrique du Sud jumaa jooju ñuy liggéey tali bi dina jaar foofu jaar marché bu bees génn tali bi aussi am na benn tronçon bu 800 mètres boo xam ne dina jóge ci juma jooju ba léegi juma immigré Afrique du Sud dem ba sës ci tali Serigne Sidi Mokhtar donc loolu mooy tali bi fu muy jaar. tali bi nag tali la boo xam ne dañ koy defar ci standard yi maanaam largeur bi 8 mètres la juróom-ñetti mètres mooy yaatuwaay bi ba nga xam ne ñaari oto dañ ko mën a daje. am na aussi ay trottoir ci côté bi ci structure bi maanaam dëgërlaay bi. tali bi am na 20 centimètres couche de latérite moom la ñuy wax couche de base après dañ ci tegaat beneen 20 centimètres latérite boo xam ne dañ koy mélanger ak ciment moom la ñuy wax euh, couche de base maanaam 20 centimètres yi ma njëkk a wax mooy couche de fondation yeneen 20 centimètres yi mooy couche de base bi moom mooy am ciment bi muy 40 centimètres ak revêtement boo xam ne bitim la béton bitim bi la mooy enrobé dense dañ koy goudronné defe naa ni yi la mais techniquement dañ koy bitimé loolu mooy structure tali bi am na zone yi nga xam ne nag ndox mi dafay jaar am ngeen na ndox bu jaar ci tali dafay yàq zone yooyu dañ koy def ay radier en béton lu ñuy wax radier submersible dañ koy def ay béton yoo xam ne ndox mi mën na fa jaar te du ko yàq durée travaux nag dix la fukki weer maanaam travaux yi fukki weer la war a durer donc avril deux mille vingt deux allah dinañ ñu ñëw fii. ñaan nañ ko ñëpp a teew ñu inauguré waat tali bi fii avril naa ne gouverneur de la région de Diourbel dana ci ñëw mooy dafa am liggéey boo xam ne Sénégal dañ koo séddale juróom ay pàcc pàcc pàcc muy juróomi téeméeri commune ak juróom fukk ak juróom ñaar ñu teg ay sart ak i ak i ci réew mi wax ne commune bu dee commune nii lay doxee ñi nekk ci commune ba nii lañ war a doxee tënk ko ci doxe ay procédure yoo xam ne administration ñoo koy seere di ñu contrôler ndax dañoo jël fukki commune ak juróom muy fukki régions ak juróom dañoo jël fukki communes yi ak juróom jël ñeenti communes yi nga xam ne duñu ay région waaye commune yu mag lañ te Touba bokk ci Pikine bokk ci Tiwaawan bokk ci Mbuur bokk ci muy fukki commune ak juróom-ñeent la ñu jël boole leen président de la république mi xam ne ku mën a lijjanti ab xaalis la te bëgg Fongolemi mel ne Dakar li waa Dakar di dund waa Fongolemi di ko dund waaye li waa Dakar di dund waa Touba di ko dund waaye li bu ñuy wax PACASEN muy appui. projet buy dimbale communes yi ngir ñu mën a def infrastructure publique yi nga xam ne moom la war a am te seen doole matiwu ko ñu mën a bénéficier wu ci loolu boole ko ak li ñuy am ngir mën a def li nga xam ne moom la askan wi soxla loolu mooy PACASEN mu ànd nag ak ay mesures d'accompagnement ak i procédures yoo xam ne képp koo xam ne tegu nga ci yoon te niñ la waxe nga defe ko da nga ci bénéfice wu ba mën ci am loo dollee ci sa budget ba mën a réaliser ay infrastructure publique yoo xam ne saw askan ñu ci mën a dana leen mën a jàppale bi ñu ci bokkee nag permettre nañu ñu am loo xam ne mën nañu cee def lu toll nii godoro bii nga xam ne mën na huit kilomètres deux cents sept kilomètres de cent quatre vingt la woon waaye ci càmbar bi ñu mujj def te bi ñu ko defee ñeenti commune jiitu ci Sénégal te ñeenti commune yooyu Touba bokku ci ndax mën naa ne ci ñi ci jiitu laa bokk maag sama conseil municipal ba tey ñu am huit kilomètres deux cent yoo xam ne war nañ koo mën a godorone ci biir dëkk bi entreprise bi nag commune bi tey néewul am na cinquante pour cent wala quatre-vingt pour cent des des des di xaalis bi mobilisé nañ tey xaalis bi lépp mi ngi tegu ci trésor entreprise bi bu pare woon suba ñu fay ko avril 2022 mois de avril 2022 la tali bi war a pare ñu war a taxawaat fii inauguré ko yal na yàlla dogal ñu fekk ñu fi ci jàmm ba ñu inauguré ko ak jàmm te ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi te wér ak njabootu Serigne tubaab gépp li ñu fi dajale ne tey gouvernement Sénégal ginnaaw bañ ko dogalee programme PACASEN daanaka su ma neexee ne mayew ko daf koy jaay mais leen la koy jaay mooy maire yi nangoo liggéey te condition yi mu teg mu remplir condition loolu gouvernement bi tegoon nekk ne alal jooju ko ko bëgg a defar da respecte respecté charte ya commune Touba ak maire Abdoulaye Kha respecté nañ ko cent pour cent loolu moo nañ may lii tey donc li fi am tey ab liggéey moo ko maye dañoo teg ay charte maanaam ndax respecte nga teg si est respecte que respecté nga code des marchés yaa ngi formé élus yi ay charte yu méttee métti waaye buñ ca teg rek maire Touba ñoom respecté charte ñu ne kon yelloo na alal jooj ñu teg ko ci maire Touba ndax ñi ñu jar jàppale leen loolu moo waral bés bii gonk yombul woon waaye ñii ngeen jiital sëñ Abdou Lahad Ka nii ak ñi mu àndal muy conseil municipal fi ngeen leen teg ñu ngi liggéey guddeeg bëccëg pour mu yokku te dina yokk Touba ku ko bëgg defar ku defar réew mi Sénégal yaakaar naa ne soo jëkkewul Touba a ah, doo ko mujjee ndaxte ab lim ci nit mate na ko koom-koom bi mate na ko waaye li fi sëñ Tuubaa liggéey ba tax dëkk bi nekk dëkku jëmukaay nit ñi yaakaar ko ci diine yaakaar ko ci koom-koom yaakaar ko ci lu bëree bëri mu nekk dëkk bu am solo ci réew mi yaakaar na ne programme bu ñu yëkkati Touba ah bu ci jiituwul kenn du ko jiitu